su mbégte la pour ñun ñëpp ñun ñi nga xam ni ñooy liggéey ci centre des services fiscaux de Thiès euh, tey ñu ngi recevoir délégation bu am solo boo xam ni madame la directrice générale de l' agence des constitutions de l' ko moo ko jiite. ànd ak euh, le directeur de l'administration et du personnel de la DGID mi nga xam ni moo fi teewal le directeur des impôts et domaines di euh, di am Cheikh Ba donc ñun ñu ngi am kontaante ak mbégte pour recevoir leen ànd ak ñoom xool situation bâtiment bi fi mu toll. Euh, defe naa ñu ngi ci dernière retouche yi euh, madame madame la DG je pense que di nga ñu ko confirmer et que am nañu espoir que nous allons intégrer très rapidement ces nouveaux locaux pour permettre citoyens citoyens yi ak Thiessois yi ñu recevoir leen dans d'excellentes conditions xam ngeen ni euh, service impôt et domaine service la boo xam ni dafay recevoir ay nit ñu bari ay nit ñu bëree bëri te am nañu souci loolu politique u ministre de l'économie et des finances la politique u directeur général des impôts et domaines la ñu jëlee ko ci seen ci seen kilifa le président de la république pour que ñu man di recevoir euh, les contribuables les citoyens disons dans d'excellentes condition xam ngeen ni impôts et domaines service public état la boo xam ne dafay recevoir nit ñu bari te euh, président dafa bëgg ñu recevoir nit ñi ci conditions yoo xam ni condition yu baax la ay conditions dakk yu baax loolu moo waral comme ni ko président waxee bërki démb moom mu ngi ériger la cité ministérielle à Diamniadio mais di gën a également au niveau de chaque région ñu man faa ériger benn immeuble boo xam ni dafay recevoir l'ensemble de l'administration régionale bu ko defee ñu yombalal population bi l'accès au service public loolu lu am solo la te wax dëgg yàlla ñun ñu ngi koy rafetlu donc ci turu personnel u centre de services fiscaux de Thiès ñu ngi gërëm bu baax le ministre de l'économie et des finances Amadou Ba di gërëm le directeur général des des impôts et domaines Cheikh Ba euh, di gërëm kilifa yi nga xam ne ñooy liggéey ak ñoom ñëpp mais également fàttewuñu euh, madame la directrice générale de l'agence de la construction des bâtiments et des édifices publics mi nga xam ni euh, moo piloté dossier bi véritablement indi ci touche personnelle am ba wax dëgg yàlla bu fekkee visité ngeen ci kaw di ngeen xam ni ay locaux yu adapté liggéeyu service impôt et ay li ay locaux yoo xam ni véritablement citoyens yi dinañ leen mën a accueillir dans de bonnes conditions am mbégte am ci kontante parce que euh, bloc administratif bi daf ñuy jàppale ci politique bi ñu bëgg a def fii ci polytechnique ba maanaam yokk école bi comme école vraiment école yi nga xam ne dañoo gën a xarañ ci àdduna ñu pare dugg ci yeneen bànqaas yoo xam ne Sénégal da koo soxla pour mën a développer bànqaas yooyu bu ñu duggee ñu école bi maanaam suñu maanaam ni ñu mën a suñuy salle de classe daf ñu bloqué woon mënatuñu woon jël ñu bëri dugg ci loolu léegi bi ñu defee suñu document de stratégie yi suñu politique ministre bi accompagné ñu dénk agence ñu bâtiment bi dëgg fexe nga xam yi nga xam ne ci ay salle de classe yi nekkoon ak bureau enseignant ko defee lu toll fukki salle de ko mën a am yoo xam ne dana demoon jël yeneen ndongo moo tax loolu ñun dañ cee kontaan liggéey bi ñu ciy liggéey kontaan si étudiants ci kontaan ci parce que dana tax école ba daan daje boo xam ne yeneen banqaas yoo xam ne soxla nañ ko réew mi soxla na ko te kenn du ci tàggat ay ndox la loolu mooy vraiment solo spécialement bi di ci sant sant agence bi ñi ñu doon liggéey di sant ak seen ak ñëpp di jàpp ba yegsi donc montée en puissance bi ngeen wax pour école dina jàppandi waaw dina jàppandi dina jàppandi parce que bii benn benn aspect la ci beneen aspect bi mooy aussi fu ñu dëkkal étudiants yi loolu aussi ñu ngi ci gouvernement bi jàpp yeneen mooy laboratoire bi ñu ngi koy tabax donc jàpp nañ ni bu soobee yàlla aw nañ ci yoon mag yu niroog euh, saalu cinéma bu 800 place ay bureau ak ay li ñu mën a tuddee plateau technique euh, euh, yooyu nag daf ñu dafay permettre en tout cas ci université Thiès yokk patrimoine immobilier ah, am amam ci wàllu immeuble mu nekk nag loo xamante ni lu am solo la ci ñun parce que dina am yu bëri yu nga xamante ni Euh, sur le plan scientifique dinañ ko mun a organiser fii loo xamante ni daanuñ ko woon mun a organiser ci biir université bi loolu nag mu am lu am solo parce que day permettre en tout cas euh, acteurs yi ñi nekk ci biir université ak ñi nekk ci bitim université am waxtaanukaay bu nga xamante ni mun nañu def ay conférences di ko fi organiser euh, pour gën a jàngal suñu étudiants yi pour seen jàng gën a xarañ. donc damay commencer par wax li nga xam ne moo ñu fi indi tey dañoo ñëwoon donc Thiès eh, di xool si bâtiment yi nga xam ne moom lañ ci tabax parce que comme ni ngeen ko xamee agence de construction des bâtiments et du public président de la république def ko def ci ministère du renouveau urbain de l'habitat et du cadre de vie pour mu mën a yore lépp loo xam ne mooy tabax ci réew mi ak ci ministère yi donc Thiès comme ni ngeen ko gisee président de la république investir na fi fukki milliards ak juróom-benn commune Thiès bi rek la. université yi def na ci fukki milliards ak ñaar mooy construction ISEP bi juróom-benn milliard la extension université bi doon juróom-benn milliard également. centre de services sociaux bi un milliard sept cent mille millions la ensuite hôtel du rail bi nga xam ne dañ fa war a dem léegi presque un milliard la. palais du congrès bi parce que presque aussi un milliard la donc am na yoo xam ne pare na li nga xam ne visité nañ ko école polytechnique bi pare na réceptionné na ko palais du congrès pare na hôtel du Rail pare na fii ñu ngi ci 90 pour cent comme ni ngeen ko gisee aménagement extérieur bi moo ci des ak poser appareil yi lampe yi ak euh, toilettes yi donc fii ak fin février dinañ ko terminer à cent pour cent loolu yëpp ni ko président waxee woon noonu lañ koy defee parce que vision am la ndax pour Sénégal jëm kanam il faut ñu def ay infrastructure infrastructure yooyu nag rien que commune Thiès bi rek def na fi fukki milliards ak juróom-benn donc loolu vraiment ñu ngi koy saluer euh, di ko ci gërëm di ko ci sant également. est yi ngeen doon wax fële na le euh, loolu également mooy affaire climatisation bi la euh, day loo xam ne bokkul woon ci marché de base bi donc xaalis bi disponible woon. nekkul woon sur place mais le ministre de l' enseignement supérieur ku nekk xam na ni mu xarañee ci université yi versé na ko ci weer wi passé nee na agence bi nu ñu mënta def nañ rendre fonctionnel bâtiment bi fonctionnel la sax gaa moom waaye bâtiment bi dafa tàng donc il faut ñu def ci euh, climatisation bi te loolu yaakaar naa ne bu ma ñibbee tey tey te dinañ ci jublu pour seet nan la ñuy def ba def ko avant fin février di der euh, madame Diom comment jëm ci wàllu stade Lat Dior. stade Lat Dior bu ngeen buggee mën nañ fa dem parce que stade Lat Dior travaux yi c'est en cours tout ce qui est de génie civil c'est terminé defar nañ mur bayu bi def nañ grillage bi ensuite euh, kii bi defar nañ ko charpente bi yegg na peinture rek moo ci des fu mu ne ñu ngi defar euh, terrain bi couche de base bi yëpp euh, def nañ ko ñu ngi def terreau bi def nañ sax ay essai pour gazon bi fii may wax ak yéen sànq laa jokkoo entrepreneur bi nee na système d'arrosage bi mi ngi ñëw. Euh, teen yi nga xam ne war nañ ko foore foore nañ ko ba pare ñeenti teen yëpp am nañ ndox donc yaakaar naa ne moom it fii ay ñaari weer yooyu dina pare bu ngeen gisee tam mu am retard dañ ne woon dañuy réfectionner stade bi rek par la suite euh, le ministre de sports Matar Ba bind agence bi lettre xamal nu ñu nañ respecter norme FIFA yi pour mu doon stade boo xam ne euh, compétition internationale yi mën nañ ko fa def ñu indi ci nag yoo xam ne ay changement la maanaam war nañu yokk stade bi yokkaat euh, lamp yi mu gën a gudd loolu yëpp ñu def ko benn avenant ñi ngi doog a jël crédit ci 2017 yi ba nga xam ne def nañ avenant bi te yaakaar nañ ne entrepreneur bi di ku farlu la ci loolu te dina ko yeggali nu mu gën a gaawee pour ñu libérer ko jox ko population Thiès bi moom it coût bi un milliard quatre-vingt-cinq millions la pour ñu def euh, réhabilitation bi yëpp mu doon loo xam ne dina respecter norme FIFA yi